ba tey ñu ngi ci bindab xalil bi nee na wa fadailuhu ngëneelam ya te mooy njàpp ngëneelu njàpp ya moo di woon parce boo xam ne taahirun dafa laab ngëneel la ndax xam nga bu fekkee danga ne ci place bu làpp boo gisee ñu sib place bu sobe walla ñu sib kuy jàpp di wax malaayka yi dañuy indi benn xayma boo xam ne leer la xayma leer la malaayka yi indi mu tiim la yow mi jàpp bu dee fa ngay jàppee fu xam sobe la malaayka du fa ñëw mukk boo waxee it mala gars yi dem ak seen seen xayma ba ñoret dem seen yoon moo tax kuy jàpp bëgguñu ko ko nuyu déedéet ndax nuyoo sunna la waaye fay farata la kon bu fa daayiloo nga ñëlem mooy doon place boo xam ne taayoon dafa laab waqilatul ma waqilatul maay ak euh, néewal ndox ma sopp nañ ko ci bilaa jin amul daytal nag ndax ndox mu bëree rek dangay ngay sàggan ne dana dana daj te mun naam du daj kon bu néewee nag nga sonn ca moo gën kal xusli ni ki sangu farata yi sopp nañu néewal ndox ma wate amunu aada yi ak njëkkee cëri ndeyjoor ya njëkkee cëri ndeyjoor yi sopp nañ booy jàpp nga njëkkee cëri ndeyjoor yi yàgg naa koy wax ne boo gisee koy jàpp njëkkee càmmooy bul ne mënta jàpp njëkkee ndeyjoor dañ ko sopp rek wa inaa in ak nekk def ndab la ci sa wetu ndeyjoor in fuuti ànd ubbeef na ko bu dee ndab la nekk sa ndeyjoor buy satala nag ne nee sa càmmooy bu batun ak sopp nañ dooree booy masa bopp bi mu xadimi raas ci njëlbeenu bopp mooy ci jëba duñ sopp la bu la neexee dooree ci ndonga ba kuy jàpp ba tey njëkkee ci ndonga it wala de njëkkee ci côté ndeyjoor muy masa bopp bul ne mënta jàpp de njëkkee ci jëba dañ ko sopp rek Wasa ko xas ak tollanti raxasam ba mooy raxasu ñaarel ba muy tollanti ba luñ sopp la wa ak ñi telbe yi sopp la deng fofu toujours fi wax ni bo yene yene rek yene rek xam nga lu tax mën ta remplacer farata te bu de bu rek rek nga yene mu ne moy farata te bu njëkk ba la ngay raxas dajut kon jappale yakuna parce que bi dañ ko sopp te mënta wutu farata ba ñettal dañ ko sopp mënta wutu farata ba motax yeenul farata rek yow génn ci bu ñeek bu dajul ñaareel ñu remplacer ko la desoon mottali ko wala ñettal bi mu wal rillani mu ndax ñaar tànk yi kasaale naka non la dañ ko def ñett ñett wala da ngay rag rek set mu ci kanam awil madlabu wala lañ sopp dal al inqaaw mo set wal tukuroo ndax dem na sip rabaatu ñeenteelu yoon ca ragg ba lañ ko sib aw tum na def ne ko tere mooy def ko xaraamal xilaafoon am nañ ci wute dégg nga am na ci wute nee na wa tartibu sunna yi ak toftale sunna ya liñ sopp la toftale sunna yi nanga nga ragg loxo yi ñetti yoon nanga nga galax ndeku sor ne ko korokoro nopp sunna yaa ngi noonu aw ma di wala mu ànd ak farata ya yëpp sopp nañu ko wasi waakon nako noonu sopp nañu socc wa in bi isbain donte as mbaaram la soccoo sax euh, sopp nañu ko sopp nañu ko yénti moo wax ne bu fekkoon di muy nekk lu tiis ci sama xeet sonal leen kon damay santaane ne julli nekk bala ngay jàpp na nga socc ka salaatin ni ko julli xam ne boo xadat euh, sori na minhu ci njàpp la ne bu fekkee da nga jàpp jàppal ci subaar tojul nga jëm ba tàkkusaan nga bëgg cee julli na nga soccu golandekuwaat sopp nañu ko dégg nga wa tasmiyatun sopp nañu wax bismillah ca booy jàpp li sopp la bismillah bii nag bor na ci liñ ko sopp ci loolu ngay jàng moo tax watu suroxo def na yoonal bismillah ci cofel ga fi xullin ci sangu farata wa min ak ci sopp nañ wax bismillah waa kilin naka noonu ci lek euh, sopp nañ nga wax bismillah wa surbin naka noonu ci nan sopp nañ nga wax bismillah wa sakaatin naka noonu rendi hit sopp nañ bismillah donte dafa am ñu xamni sax ne nañ bismillah ba la nga rendi baxul waru bi war daba sopp nañ nga wax bismillah fay safinatin boy dugg ci galit top nañ nga ne bismillah wa duqulin boy dugg kër wala neek wala jakka, top nañ bismillah nena wadidhi ak safan bi to moy genn motam ne kon wa duqulin liman sinin nga ko dugg ci kër wa majidin ak dugg ci jakka top nañ bismillah wa ak genn kër wala genn jakka, wala genn neek sopp nañ bismillah walub si looy sollu ne sopp nañ nga wax bismillah wa xalqi baabin booy buntu sopp nañ nga wax wa it fayi misbaahin booy fay làmp sopp nañ bismillah kon jullit daal lu muy def rek sopp nañ bismillah o wat in naka noonu jaxasoo sopp nañ bismillah wa soxna di xatti bin yéegu aju xutba ja min baran ci min sopp nañ bismillah masar la dafaay ni sama fool bii ba wa tax mi di mayitin gëmmal niw bëtam ya topp nañ bismillah ku faatu ngay gëmmal bëtam ya wala addi yii ba tey boo koy laatal moom ko faatu sopp nañ bismillah muy ne waaye wala tundabu defu sopp mukk itaalatul xurati guddal weex-weex booy jàpp ragg ba ca xeel ya sopp ko de ndax yént bi dafa wax ni sallallahu alayhi wa bu yemal xëyaamee xeetam yi bu ñuy jàpp bu ñëpp taxawé ñu doon japp seen japp la fam ñu dem fam yemoon day wéx ñu xamné ñi leen ñoo doon jàpp léegi nag bu mu tax na ngay japp dem ba ci home ya Dedet, dedet. bu mu tax ngay japp dem ba ci home ya wa masu ak masa doq ci japp sopp ñuko dé masal ba ci ndong rek nga fa way dem bu ci rek doq ga sopp ñuko wa tarku masil adai akit baye masa ceri yi sopp ñu nga bañ masa ceri ya. xam nga yére bi bu fa tooyee yàgg rek bu yàggee dafay nëb moo tax topp nañu boo jàppee ba noppi nga jël musuwaar cër yu tooy nga pomp ko musuwaar bi ñàkk bi fomp nag soppuñu ko nee na wa in sàkk sikki sàkk na moom mu kalaf fi saalisatin ci ñetteelu yoon ba ndax bi ñett la wala du ñetti ñeent la fa fii karaatiya nekk na ca sibu def ñetteel boobale ndax mu naa muy ñeenteel nekk na ca cibel ga wanat biha ak sopp def ko ndax mun naa am ñetteel la xawlaa ne am nañ ci ñaari wax xaala wax na maasar yu ci jëmmam ne ka sakki yi ni ki sikk sikki sàkk ak mukkalaf fi soo mi yow mi arafata ci woor bisu arafa léegi nag muy sikki sàkk ndax bis bii juróom-ñeenteel la te bu juróom-ñeenteel woor ko muy bisu arafa ba wala fukkeel la te muy ndax julli tabaski la te kon woor ko dafa araam moo tax ne ko ka sakki yi fi soo mi arafata xaal ndax moom huwoo moom bis boobule al-iid mooy tabaski bi wala mooy arafa bi bu fekkee nga xam ne euh, mooy tabaski bi xoor ko dafa araam kon nag dañ ko sib dégg wax bi de wala sopp nañ ko benn la ñoom ñaar dégg foofu jeex na baax na foofu